wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk Sénégal maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn jiite ci nuyoo bi mbokk jullit yi rawatina nag sama mbokk taalibe mu Sëñ Abdou Lahad moo ñëw di waxtaan ak yéen am kàddu yu gàtt moo bëggoon a yëkkati ngir ñu bokk mooy réew mi li may wax nag bàyyiwuma ci kenn ñëpp laa ci maas wax. mooy Sénégal daal adduna bépp xam nañ ne jàmm la te ci jàmm lañuy dox ak teraanga ah réew mi de bari nañu jaaxle lool bari ñu tiit ak ñu jaaxle waaye nag dal war naa mën a am fi nekk daal mooy réew mi daal mel na ni soppiku am na ci. inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim loolu alxuraan wax bu ñu bëggee daal soppi ko ñun ñun suñu bopp ñoo ciy jiitu ñu bari ah li may wax daal di wax te yàlla tax maa ngi koy tàmbalee ci ki jiite réew mi ba ci ñun gën a suufe di ko bàyyiloo xel ni Senghor de moom mi tàggoo ci kilifa diine yi ba ñëw Tuubaa la wax ak Cheikh Abdoulaye ak la ko tontu la ci gën a am solo mooy loolu yooyu benn war nga doon sant fukk ndax ñoo la fal te buñ ñëfal toon doo falu buñ la war a nit sab du yegg kon bu ñu santee benn war nga doon sant fukk kon yow mi jiite réew mi wax jooju yaa xam na ndax jiite rek la ko waxoon la ko dalee ci sama nag ba fii nga tool nii ah xawma lu mën a xew de waaye ñu nga wutu ma bàyyi nañ jàmm te buñ sañoon da nga nekk ñu ci jàmm te bàyyi nañ jàmm am jàmm ndax loolu jàmm kat jàmm ko doon mbooleem réew mi di kilifa diine yi fi ne yëpp maase nañ ci ànd yow jàppale la di la ñaanal nga xam ne yow la fi yàlla teg te doomu aadama dafa war a nangu dogalu yàlla bi yàlla dogalee nga yor réew mi nag ba suñ jonte ji at yi ñu weesu de wax dëgg yàlla ba ci at mii ñu nekk coow li bari na lool jàppal bàyyi la werante weddante weerante te loolu de yoon la waxee ne fa jëm bu fa àggal bu baax loolu nag ku ci am baat nga ñooy dal ak ku la mën a jege ak ku la a xalaatal yàlla defal na lam xel moo xam ne jaar ba jiite réew mi doomu aadama yi yow rek la ñuy ak fu ñu mën a nettali ay sénégalais kon dalal seen xel ak dox ci tànk jàmm jàmm kat des koy wax di ko jëf di aussi rek di sant di gërëm mboolem ñu dëkk réew mi ba ci étranger yi di leen xamal ne man de jàmm rek laa yéene réew mi ndax moom laa yéene saxam yéen pour mu pour mu fi bokkal dëkk ak foo ci biir réew mi te bitti réew mi te Sénégal la ñaan jàmm suñu gisee ma yi la sama kilifa bu baax nga waxoon rek yaar du ko def ak kenn du werante ak kenn te du xuloo mooy xëccoo dara mbaa xëccoo ñeer loolu nag Masaya décembre dama ko def ak kenn kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm di balaa di balaa ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. wa rahmatulahi wa barakaatu. mbokk Sénégal maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn jiite ci nuyoo bi mbokk jullit moo ñëw ñu waxtaan ak yéen am kàddu yu gàtt moo bëggoon a yëkkati ngir ñu bokk mooy réew wax nag bàyyiwuma ci kenn ñëpp laa ci maas wax mooy Sénégal daal xam nañ jàmm la te ci jàmm lañuy dox ak teraanga ah réew mi de bari na waaye nag dal war naa mën a am li fi nekk daal mooy réew mi daal mel na ni soppiku am na ci inna allaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim loolu alxuraan wax bu ñu bëggee daal soppiku ñun suñu bopp ñoo ciy jiitu ah li may wax daal di wax te yàlla tax maa ngi koy tàmbalee ci ki jiite nit ñi gën a suuf di ko bàyyi loo xel ni su ma war tàggoo. ci kilifay diine yi ba ñëw Touba la mu wax ak Cheikh Abdoulaye ak la ko tontu la ci gën am solo mooy loolu yooyu ñu santee benn war nga doon sant fukk ndax ñoo la fal buñ defal tontu buñ la war nit sab liggéey du yegg kon buñ la santee benn war nga doon sant fukk kon yow mi jiite réew mi wax jooju yaa ko ndax jiite rek la ko waxoon la ko dalee ci sama war nag ba fii nga toll nii ah xawma lu mën xew de waaye ñi nga wutuma bàyyi nañ jàmm te buñ sañoon da nga nekk ñu ci jàmm te bàyyi nañ jàmm am jàmm ndax loolu jàmm kat jàmm ko doon mbooleem réew mi di kilifa diine yi fi ne yëpp maa ngi leen ci ànd ak na di la ñaanal nga xam ne yow la fi yàlla teg te doomu aadama dafa war a nangu dogalu bi yàlla dogalee nga yor réew mi nag ba suñ jonte ji at yi ñu weesu de wax dëgg yàlla ba ci at mii ñu nekk coow li na lool jàppal bàyyil werante weddante weerante te loolu de yoon la waxee ne fa mu jëm mu faa àggal bu baax loolu nag ku ci am baat nga nga dal ak ku la mën a jege ak ku la a xalaatal yàlla defal na lam xel moo xam ne ji nga jaar ba jiite réew mi doomu aadama yi yow rek la ñuy ak fu ñu mën a nettali ay sénégalais kon dal seen xel ak dox ci tànk jam jàmm des koy wax di ko jëf réew si rek di sant di gërëm mboolem ñu dëkk réew mi ba ci étranger yi ba di leen man de jàmm rek laa yéene réew mi ndax moom laa yéene saxam yéen ak ku mu ku ne ci biir réew mi te bitti réew mi te Sénégal te di la ñaanal jàmm. soo la sama kilifa gu baax nga waxoon rek yaar moom nee na du ko def ak kenn du werante ak kenn te xam ne xuloo li koy indi mooy xëccoo dara la mbaa xëccoo ñaar loolu nag parce que yéen des sama dund du ma ko def ak kenn kon nag maa ngi sant ñëpp